tay altine juróom benni fan si avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale Journal résultat wu test tay si juróom ñen fukki test ak juróom yu ñu réalisé ñent ñoo si positif bon nag ñeent ñoo si am jangro ñetti ay cas contact yu ñu doon suivre la benn bi moom la ñuy wax transmission communautaire mënaguñ ko lënkalee keneen ñu leen di yëgal tam ne tey fukki patient yoon hôpital wér nañu bésu tey bi dañ leen génn hospitalisation ci bés bi ñu yëgal ne do ñi xamante ne ñi ngi hôpital ji faju ñi ngi yëg tan bu baax ci bésu tey bi ba mu dooree léegi ñaar téeméer ak ñaar fukki juróom benn cas moom lañu ñu déclaré Sénégal ñi ci wér ndëkk juróom ñeent fukk ak ñaar ñoo ci génn àddina kenn ki ñu évacué ko bon ndëkk ci bésu tey bi ñi nekk hôpital ñu leen di faj ñu ngi tollu ci téeméer ak fanweer ak benn ministre de santé de l'action sociale mu ngi ñaan population yi ñu tënku bu baax ci liñ ñu leen di digal pour que xeex bi contre Covid 19 ñu mën ko gañee si nu mu gënee maa ngi leen remercier bu baax.